mbokk yi ñu ngi ñaanal Cheikh Mamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko àggale ay mébétam ci lislaam waaye noonu lañ koy ñaanale sëriñ seex Jëmb Fall waaye noonu lañ koy ñaanale sëriñ Basiiru Anta Ñang mbokk yi di ñaanal jullit yëpp waaye di ñaanal taalib yëpp fu mën a nekk ci kaw suuf ñu fas yéene ñëw yéen ci sunu yóbbalu bis bi ba tey noo ngi ci téere bu am solo bi nga xam ni sëriñ tubaab moo ko bind tudde ko Nahjul Qadaa'il Haaj waaye mu màcc wala mu méng jëm ci ay teggin mbokk yi tey jii ñu fas yéene jëm ci sunu ñaar fukkeelu bind ak ñett wa borra toppal waalidayka sa ñaari wayjur war fox te nga ñeewante bihima ci ñoom ñaar wakkun te nga nekk mu mubaadaran di aji gaaw ila amrihima jëm ci seen ndigal wante hi te nga daytalu wante hi te nga daytalu mooy nga jublu mooy nga nangu am jumlatima walis mbooleem la nga xam ne xad na xayaa tere nañ la ko anhu walis ko li rabbika ngir sa boroom fayas daadu ba dana dolliku ulaaka sa kawe wa kullu képp koo xam ni ya yakunu dana nekk ak baraadi gën a mage min ka ci yow minal aqaari bi ci ay jige ñaale ku nekkal mu waqiran di aji wekk ko wa gayrihim ak ñu dul ñoom wa kun na nga nekk ma naa si ànd ak nit ñi jami am mboole seen bi xuluqi ci jikko ja alxasani ja di aji rafet yuxbib ko kon dana la sopp wala dana la bëgg albadion aji fent ji waxasini na nga rafetal alxuluqa jikko ja bi taraxu bi ci ak yaatu yaatulu wa bi tawaddudi ak ci ak sopp soppulu ilayhim jëm ci ñoom toxba bi kon def na la sopp walla yi ne na nga nooyal alxawla wax ja li kulli naasin ñeel mboolem nit ñi fa innahu naka moom min seemil ak yaasi bokk na ci jikkoy way ñaw ya faxbaru xibaar nañu bi ànd ni solaqali ci naka xaajum xel tuwaddu mooy sopp sopplu li si ñeel nit ñi anzil fadli walis boromu ngëneel wa min saadati fata bokk na ci texe kem si wala nit ki xay su xasada fu fa jublu an laa yuraaduhu bañ koo delloo fu aadu si rasaadi xolub boromuk jub yaani dana jublu an annahu naka moom yaamuru ko mi nga lay digal bi birri waalidayka mooy ci topp sa ñaari wayjur wantar fa ko ak nga ñeewante bi ñeewante ci ñoom ñaar muy ndey ak baay wa antu baadira ak ngay gaawe ilaa amrihimaa jëm ci seeni ndigal wantan tahiya ak ngay teeroo walla bàyyi ama walis la nga xam ni naxa yaaka tere nañ la wala tere nañ la ko anhu walis ko faqat xaala wax na laahu yàlla subhaanahu wa taala taala kawe na wa wasay naa dénk nañ al insaan nit ki bi waalidayhi ci ñaari waajuram xusnan ci ak rafetal walla ci jëm ci ak rafetal ila zalika jëm ci lu dul loolu minal aadaabi ci ay aaya wala ci ay teggin minal aaya ci ay laaya wa antabura ak ngay topp man ka nga xam ni huwa moom akbar moo gën a mage min ka ci yow min aqaaribika ci say jege wa gayrihim ak ñu dul ñoom wa tuxassini te ngay rafetal alxuluqu jikko ja wa turaxibu te ngay yaatal bi bihim ci ñoom wa tawadda te ngay sopp sopplu ilayhim jëm ci ñoom wa taxababa te ngay sopp sopplu fa inna tawadduda naka sopp sopplu mooy bëgg-bëgglu sopp sopplu comme niñ ko xamee rek mooy bëgg-bëgglu bëggalu naa si jëm ci nit ñi nisul aqli mooy xaajum xel wa min saadati wa min saadatil mar'i bokk na ci texe kem si wala texe nit ki an laa yuraduhu mu bañ koo delloo xal ba muminin xolub aji gëm wa antu layyin ak ngay nooyal xaw la wax jali jamci naasi ñeel mboolem nit ñi fa innahu naka moom min seemil ak yaasi bokk na ci jikkoy way ñaw yi kon loolu li nga ciy dégg mooy Sëriñ Tuubaa nee na del topp sa ñaari waajur lum la digal nga di ko def lum la tere nga di ko bàyyi dee leen wormaal waaye dee leen yërëm ndax sunu boroom mi ngi wax naan dénk naa nit ñi ñaari waajur ngir muy rafetal jëm ci moom noonu ma ko waxan ci aay bi ak yeneen aay yu mel noonu képp ku la mag dee ko topp moo xam sa waajur la walla sa mbokk wala ñeneen tey rafetal ci say jikko ci ñépp di leen sopp sopplu ndax loolu nee nañ mooy xel bu nu ko aajowoo ñoom ñaar nee nañ ñoom ñaar nanga leen defal seen yitte lépp loo xam ne aaye nañ la ko loola nga fexe nga bàyyi ko waaye del noo leen say wax jëm ci ñoom comme ni mu ko indee woon ci ayib alquran ba ndax bokk na ci jikko yiw yi mooy di noo say wax bokk na ci màndargam gëm wala màndargam texe xole jullit yi bañ laa delloo bépp xol boo xam ne xol bu gëm yàlla rek xol boobu la gisee boroom daal lay bëgg te mooy jublu la te mooy sopp la te mooy def la ne boppam